شجاعة الأمة كنا أنجل مديكنا كنا أنجل كنا ضرب مديكنا كنا ضرب كنا ضرب مديكنا كنا ضرب Serigne Modou Bousso Dieng kon ñun ñëpp nañu déglu le président mu joxe li nga xam ne man la kon maa ngi sant Serigne Mountakha Mbacké dama leen di nettali ni man damay dund sëriñ bi fu ma toll maa ngi koy dund sëñ Touba gëm sëñ Touba doyloo sëñ Touba yaakaar sëñ Touba looloo tax bi ma xëyee dama ni bala tàmbali nan lay tàmbalee mooy damay dem ziyaari soxna jaara bu so poroxaan laa jóge ma tàllal sama loxo soxna jaara wax ko sama bëgg-bëgg jëmale ko ci réew mi jëmale ko ci ndaw yi jëmale ko ci soxna yi soxna yi jigéen ñi jàppaleen ni foofu laa fasanteeg yéen kóllëre xam ni kóllëre googu dara du ñëw sëñ mu taxaa dalal sant di ko ngi sant kilifa diine yépp këru diine yi fu ma dem fu nekk teeru nan ma teral na ma kon bég naa bu baax a baax jërë ngeen jëf li ci des mooy ma wax ci réew mi

yàq na réew mi ndax foo dem mi ngi metti rawatina justice bi ñépp ñi ngi ŋàññ justice ndax lan dafa jël loxoom tekk ci justice di ko defloo di ko diniloo ba Sénégal kenn gëmatul justice man nag danaa fexe ba yaakaar bi nit ñi am ci justice mu dellu si nan laa koy defe si ay pank yu si ay ponk yu bëri bu njëkk bi mooy président de la république dootul doon président boo jiite conseil supérieur de la magistrature président de la république dootul nommé ministre de la justice képp koo xam ni dafa fësal àndam si benn parti président de la république dootul nommé ministre de l'intérieur képp koo xam ni dafa fësal ni bokk na ci parti président de la république dana góorgóorlu ba lépp loo xam ni ci indépendance justice la jëm dana ko fësal danaa woote waxtaan bu xóot ba lépp lu ñu war def ci justice ñu def ko danaa jël conseil supérieur de la cour des comptes ma jox ko indépendance am mu man doxal ba li moo saytu dara du ko xajamal président de la république su ma yàlla mayee ndam dootul doon chef de parti président de la république su ma yàlla mayee ndam dootul jël alalu réew mi di ko séddale ay njabootam ay xaritam daanu yor réew mi yor gu rafet samay famille samay xarit samay am di jàmb du nu jël di pàccoo réew mi damay jël lépp delloo cër bi réew mi ndax réew mi lu waaye man gannaaw yàlla ñoom la président Macky nag dafa fàtte loolu ku fàtte ku fàtte la tax nga folu folleeku day lay yomb moom folleeku na na dama dama dam na dam na dam na dama dama dam na dam na dam na dama dama dam na dam na dam na dama dama dam lépp lu mu wax réew mi daf ko jëful waxoon na ni dafay def gestion sobre et vertueuse gestion boobu elle n'est ni sobre ni vertueuse c'est une gestion qui ne fait que favoriser l'intérêt personnel. Tous les jours, l'intérêt général est piétiné. On ne reconnaît plus le Sénégal des valeurs. On ne reconnaît plus le Sénégal de Cheikh Ahmad Bamba. On ne reconnaît plus le Sénégal de Mambel Malik. On ne reconnaît plus le Sénégal de nos illustres chefs religieux. On ne reconnaît plus le Sénégal de Yacine Tchandoum. C'est un Sénégal sur lequel Tout le monde s'interroge. La démocratie est en recul grave. Les valeurs sont piétinées. Les Sénégal souffrent dans leur chair. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas de travail. Les femmes continuent à se battre pour survivre. On est dans un monde sans lendemain avec Macky Moi, je veux vous proposer un contrat social qui créera les conditions qui permettront au Sénégal demain d'être prospère dans la paix. C'est pourquoi mon projet de société s'appelle Jàmm ak Xéewal. Macky fitna fitna ak békoor la indi ci am na ñoo xam ni dañu jaaxle ci. li ma yàlla defal ñoo wax ma dikkee candidature Macky moo ko téléguidé mais xam ngeen ni xajuma si gannaaw Macky yàllaa ko jox waaye duma moroomam xajuma si gannaawam kon duma nangu man ku gëm sëñ Touba gëm diine gëm sëñ Touba doo jaay mukk sa ngor kon ñooñu di wax wax ju amul solo la mais dinaa ko leeral fii ngeen xam ko li ëpp solo mooy jàppaleen ñi ñun xam na nu bu baax fanoo jëme réew mi réew mi dana doon réewu jàmm réew moo xam ni kenn du fayoontoo réew moo xam ni kenn du fi jaay doole réew moo xam ni daanu senegal yëpp daanu gis seen bopp si réew mi réew moo xam ni jigéen ñi ndaw ñi daan si gis seen bopp danaa jël liggéey métier lay jël di leen ko jox jàngal leen ngeen napp waaye duma maye jën lu dul su fekkee ni dafa doon loo xam ni mënul ñàkk waaye gouvernement boo xam ni danga nga bëgg toroxal sa askan yaay def defin goo xam ni au lieu que nga wutal leen liggéey au lieu que nga fexe xale yi bañ dem si géej gi au lieu que nga fexe xale yi bañ dem si désert bi ngay jël juróomi junni yu ngott yooyu di leen ko séddale kooku toroxal sa réew la kon Sénégal yàlla may na ko ay wërsëg wërsëg woowu dama gi bëgg yéen ñëpp ngeen gis seen bopp jot na nag lépp loo xam ni alal la ci réew bi alal jooju ñépp gis seen bopp yamuma foofu bépp gox goxaan boo xam ni moom daf ko fàtte woon ba gox goxaan boobu amul dara man danaa jël gox goxaan boobu jox ko cinq cent millions ba un milliard cinq cent ay institution yooyu nga xam ni daf ko teg pour fee fooy réew mi jël ay xaritam jël ay partisans jël ay militants am dugal fa institution yooyu yëpp danaa ko supprimer conseil économique social et environnemental amu fi solo amu fi njëriñ danaa ko supprimer le haut conseil des collectivités territoriales amu fi njëriñ danaa ko la commission nationale di dialogue social amu fi njëriñ danaa ko supprimer alal jooju yëpp danaa jël jox ndaw ñi ñu jàgg métier jox ko ñi sunu contrat pétrolier yi danaa woo waxtaan ak sunu partenaires yi pour ñu toog waxtaanaat ci contrat yi fexe ba Sénégal gis boppam ci biir contrat yi mais loolu su amee ba pare damay jël alal ju takku jox ko ndaw ñi moom joxu leen alal lu mu leen bàyyeeg ay bor la leen bàyyeel dama leen wax Sénégal fii nu toll loo jàpp lu nekk soixante-dix pour cent de la croissance soo jëlee téeméer bi nekk juróom-ñaar fukk ya ay société étrangère ñoo ko yor seetaan na ba alalu Sénégal waa bitim réew ñëw foqati ko ci Sénégal yamul foofu soo seetee at mu nekk état bi dana fay soixante-douze milliards intérêt bor bi ñëwagul de intérêt rek lay fay fi mu toll loolu wane na ni moom dafa tayle réew mi buum googu nga xam ne jël yeew ko si réew mi tay ka man danaa jëndi buum gi ba réew mi moom boppam ba Sénégal yëpp gëm seen bopp diine ji diine ji danaa ko jël yëkkati ka ba sa kaw jàppale ka ndax ñu amul lu dul diine ji danaa taxawul benn ministère bu mag boo xam ni ministère de souveraineté lay doon mooy yor mbirum diine ji mooy toppatoo daara yi lu tax ñoo jàppale école yi te duñu jàppale daara yi jaaduwul danaa fexe ba si biir daara yi ñu fee jàng-jàng métier suñ fi jàngee métier ku jàng alxuraan jàng xam-xam ñëw génn am sa métier soo liggéeyee daa doon ko am njariñ pour sa société danaa danaa jàppale danaa jàppale jigéen ñi bu baax a baax te bëgg jëmale kanam gox goxaan yépp fu amul dara danaa fexe lu bari am fa seet leen télé président Macky Sall nan la télé maa ngi bàyyi ndox Dakar ñetti fan ni amul ndox ku fekkee ni moom si juróom benn at mënul faj soxla Sénégal ba Sénégal amul ba ma Dakar amul ndox ñetti fan kooku lu koy desee mooy na dem abal nu na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem na nga ca gaar ba doon xeex jële nga leen fii sànni leen ca gaar ba ñu ngay xeex ñu ba fii la bëggoon a waa Touba waa Mbacké waa Diourbel président Macky Sall mën naa ko wax fii ni defalu leen dara képp koo xam ni képp koo xam ni daf koy gërëm wax dëgg yàlla dafa bëgg lu ko neex rek ana hôpital ba mu diggoon waa Touba seng ya ñi ngay naaw tey Touba benn pepp ndox su fa tombee taa amul assainissement yoon yu doyul tey Touba war nañ fi créer ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ni ndaw ñi daan si war mën liggéey jigéen ñi war nañu créer ay unité de transformation yoo xam ni daan si mën liggéey loolu yépp amul si Touba amul si Mbacké amul si Diourbel dama bëgg jàpp ni ni ma bëgg defaree Sénégal danaa jiital si defar boobu dëkk yu am solo yoo xam ni dëkk yooyu dara amu fi Touba mën naa wax lu fi am lu nekk président Ablaye Wade la xoolal ñoom ban fi toogee ba tey ban fi toogee ba tey suma juumul ñaari forage lañ fi def seetal ña ko tuuti tuuti dem nañ fi fukki forage ak lu topp te nag man yàlla may na ma ma am xam-xam boo xam ni dana tax ñu lijjanti problème mu ndoxu Touba bi ba nu bokkee ci rassemblement des mourides tawfiqul aadi dañ fi indi ay italiens yoo xam ni nee nañu ndox mu neex mu doy am na Touba boobu kon nañu jël ndox moomu indi ko Touba reprendre réseau bi soo ko defee daa jëmale kanam li nga xam ni mooy ndoxu Touba kon li ci des mooy wax leen ni leen ni ma tàllal loxo sama réew tàllal sama loxo réew mi si lan laa ko sukkandiku bu njëkk bi mooy dama xam ni réew mi jafe-jafe yi bëri na ñaareel bi dama xam ni yorin wi rafetul ñetteel bi dama xam ni moom ba fi nu toll gisuma mu jublu si noo xam ni ëllëg dana defar réew mi su yoree réew mi yéen ñëpp da ngeen di gën sonn kon nanu fexe ba mu jóge fi ba pare yàlla dimmali ma ba ma xam ni état di fonctionner doon naa fukki atu ministère yor naa ministère fukki at yor ministère yu bëri yoo xam ni mën na tax ma xam réew nan lay doxe moo tax dama tàllal sama loxo rekk commencé wax lan mooy faj réew mi dëpp dëpp ba fii ma toll amul kenn koo xam ni mën na ma démentir si li ma wax nii réew mi nii la noo faje soxla réew mi ba pare yàlla dimbali ma valeur yi nga xam ni société sénégalaise daf ko gëm valeur yooyu lu bëri nekk si man lu may def ngor laa see jiitu ak jom lu may def lan laa say jiital mooy yërmande yërmande te bëgg dimbale lu may def lu nekk lan laa say jiite mooy bëgg Sénégal waaye nag bëgg na si yéen nañ de amu leen moroom merci maa ngi sant jërëjëf waa kër sëñ Touba yi nekk si tribune bi suma tuddee juum aw ma seen fay ñoom ñëpp ma dama dama dem ba ñoom ñëpp ma jox leen loxo su ma waxee waa kër sëñ tubaay mooy ñi sant Mbàkke mooy ñi bokk si cheikh si mooy ñi bokk ci njabootu waa kër sëñ Tuubaa ñépp si leen bokk képp ku sëñ Tuubaa yilif yilif sa waajur yaa ngi fii ñëw bokk ak man jataay bi yàlla na ma leen sëñ Tuubaa fayal duma leen rusloo jàppale ne élection bi jeex na tey dootuma campagne bàyyi na campagne bi jërëjëf fii laa dóore avant ma dëkk bi daw na génn dëkk bi fii laa ko dóore jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf fii fii fii fii fii fii la président bi ak Cheikh Moustapha dégg ma ma ne Soham Mbacké bi yéen naka la def waaw lii de wax dëgg yàlla bettuñu parce que sëñ Abdoulaye dane ku liggéeyal sëñ Touba taalibe yi ñoo lay fay te maître mu dikk ñaa dafa liggéeyal sëñ Touba ndax sëñ Bay Jaxate dane bañ nekkoon xalaat ci élection yi dane si nguuru ma sàkkaale min bu bis ba jotee ma sànnil ke ma neex del si ci fàllu ku mel ne Ablaye Wade nag daa teel xam loolu topp sëñ Tuubaa yemalewu ko dara tànk yooyu la maître Madické Niang topp parce que ñun ñii ko liggéeyal bu ma déggee ñuy wax ay retaan damay jàpp waaye ñun ñii di ko liggéeyal di ko jàppale xam nan cofeel bi Touba am te leer na yàlla leer na Serigne Touba fépp fu murid yi tegoon Ablaye Wade teg nañ ko ndax li Ablaye Wade daj ci murid yi lépp maître Madické la ko bu Ablaye Wade réussir 95 pour cent maître maître la àndal lépp te murid yi ku Serigne Touba moo koy fay ku liggéeyal Serigne Touba murid ñoo lay fay lii nag mosali la rek lii ma lii ma àndal man téeméeri kaar la te yàlla xam na ne oto yi dañoo tardé ndax ku ne ne APR Touba bëgguñu APR dañ leen a wàcc Macky Sall ak Touba sawara la ak caas li fi maam Seera Fall jëlee woon muy dal ak mbaxana da indiwaat Seera Fall jëlee woon na ko fi mu indiwaat ko ci kanamu Sëñ Touba te lenn rek moo ñu ci mën a génn muy maître muy di Kenya di taalibe bi Sëñ Touba benn labir na xolam rafet na bu dee expérience moo ko ëpp moo njëkk ci Ablaye Wade te moo ci mujj digganteem ak Ablaye Wade rafet murid yi yéen a jën amoon ci Ablaye Wade kenn dong ko mën a ferale rongoñu Ablaye Wade muy jàppale maître Madické mu jàll premier tour incha allahu rabbi. ngeen ne ne xeex bi maanaam day soog a tàmbale ci campagne bi ànd nag ngeen koy fas yéene doxalee. waaw ñun moom duñ reculer ñun moom foo ñu fekk lu mu gàtt ñu ngi goon. man maay wax ak yow song nan ñu ma dàq leen ay yoon yoon fu ne la ñuy jëm waaye du ci seesu mouvement rek bi nu ma gisee ma ànd ak ma di Kenya moo tax ñu tey ci moom ñun moom deetaru nañ ba taxaw 28 lañ dëkk Blainville waxtu bu nekk dàqe nañ leen ñun moom dañoo pare pour tay la son bakkan ma di Kenya fii leen ko teg taalibe bi sëñ Tuubaa la am nañ seen piir Macky Sall mooy candidat franc-maçon yi ak français yi murid yi maître Madické sunu ci teg lu ñu yéene bu nu amoon ci Ablaye Wade dinañ ko dinañ ko eggale ci maître Madické Niang te ku ñu ko nar a yàqal ñu jaar sa kaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah